you Assalamualaikum. mbokk yi ni setan ci sen sen bu mag bi di kajor entertainment. Tëyman ñoo ngi leen di nuyu di leen delu ci wat ak yeen ci banen numéro ci sen émission kadior Jambari kajor nak xam nga ni émission la bo xamni day dem ci dëkki jambari fi ci kajoor ngir wanale len ak jambari sanj sañc dëkk yi fi ci kajoor tay nak ñongi sin. lay kan ku xam kajoor xam nga dëkk bi ñuy wax sin lay kan serigne sin moko ko sanc di mam lay kan waye sin lay kan agit daru kan di dëkku serigne mustapha kan mu melni tay seen équipe ñoo ngi fi tey ci diggante Sine Leye Kane ak daaru kan ngir xamale leen ak jàmbaar yi sañ ci dëkk bi di Serigne siin di maam Leye Kane ak sëriñ Moustapha Kane mi sañ ci dëkk bi di daaru kan mbokk yi bu ñu ñëwee ci dëkk bii di Sineley Kane dañu fi fekk suñu xarit Baye Sam Diouf mu xamalenu ak dëkk bii di Sineley Kane waaye mu xamaleenu ak dëkk bii di daaru Kane waaye it laataa ñuy dem ci Baye Sam ñu xamale mbokki téléspectateurs yi ni seetaan ci seen émission jàmbaari Kajoor ni dëkk bii jaar na fi maam Cheikh Ibrahima Fall làmp jaar na fi Serigne Modou Moustapha. jaar na fi Serigne Abdoul Ahad Mbacké jaar na fi Serigne Cheikh Aw Balla waye jaar na fi Serigne mustapha absatu jaxate kon mbok yi dañu leen di ak sunu xarit bayyi Sam Diouf mo xamale len ak dekk bi di sin lay kan ons billahi minas seytaan rajim bismillahir rahmanir rahim ons bi kalimatillahi tamati min shari ma xalax kon mbok yi ma ngi len di nuyu di nuyu senegal ginaaw bu ma santee ak yonante bi sante sama ñaari wajur ma ngi nuyu senegal gep ah legui nag nga dema laaj li nga may laaj man mi di wax ak yow nga dema ko laaj man Sam la tuddu sante Diouf ñu duppé ma Serigne Sam kan ci njekki nan di seut ci maam lay mi sant ci sin gi kon soo ma dee laaj ci maam lay dina ci sawar maam lay nak jambar la jo xamni ci jambar l'islam yi kenn ci la ko xamni ni sant ci penc mi di sin lay kan bima ko data ka sant ci tam ci jàng alxuraan ak liggéeyal boromam rek la ko ñëpp xamal muy fekk lu jiitu mag ñii fi nekk di senegal ñu di leen tudd di Serigne Touba maam El Hadj lu jiitu seenu feeñ booba siin laykan moom naka na dëkk boo xam ne dëkku alxuraan la bu ñëpp xam maanaam ñu bawoo ca saam dimasxa nga xam ni alxuraan bokkan nañ ci mag ñi ko daan bind di ko bind ci yaxi giléem yi di ko bind ci yaxi giléem yi ak euh, euh, yaxi gileem yi ni ko ci bind booba kayit gu ñuy bind alxuraan sax amagul loolee di dox di dox ba agsi ci maam lay mi sañc siin gi maam lay bi muy sañc siin taarix la ndax booba dëkk yi ñi fi nekk nii di ñi ma la ko mën a waxee di ci ñi senegal di maam Serigne Touba maam El Hadj Malick boobu feeñ amagul dëkk bi ñu ne di Sine Laykan bokk na ci dëkk yi njëkk am jumaa ci senegal pire njëkk Sine Laykan topp ci waaw. ginaaw Pire lay kan mo fi ñëk am juma fi ni ci fi ñu demone barab yi ci kanam ni nga xamni ni joggé fi dañ fi dem barab yoyu mboolem li wër ah, sin lay kan fi lañu daan jullee si juma a juma mam lay bi muy sanc dëkk bi mi ngi ko sañcé ci hijaba juma ju wër ci jaamu yàlla tek ko ndax bobo mom bi mu joggé kokki ñew dëkk bu ñuy wax kansaate fofu mo doon lu magi ginaaw bu ñu jógee Fuuta mojjen mi sañci mi nga xam xel moo moo sañci Kansaate moo jóge woon Fuuta moo moomee moo jur xamar biram xamar juram jur sayar sayar jur makkan makkan jur maam lay maam lay nag jàngi ji woon bi mu jàngee ba ñëw nag war a sañc dëkk boppam mu ñëw fii ci pàkk bu barkeer bii di siin laykan mu sanc ko bi ma ko sañceen mbokki daaraam yi mu fi nekkooloon muy siin mu kumba ak kokki ak badar bi mu waxtaanee ak ñoom ba mu war a sañc ab dëkkam daa ñëw fii garab gidi di yéer gi ñu bind ci benn téere tak ko ci pétaxu mareem war ay fas topp ci bam tong ci garab gi di yéer gi muy garabu war wara doon garabu pencim mu toog fi nag taal fi taalub jàngam waye fi nag jàjju ba julli jàng bay yàlla sa borom dogal talam bi booba dëkk yi fi nekk mu fekk leen fi muy ka woon jaañ ak ngandeeg ak toora fii manding la woon muy taal taalam bi bu guddee ñëpp di seen taal bi ñu naan seen leen lay kan seen leen taalub laykan gooje moo indi turu siin laykan bi waaw maam lay nag yàlla sa borom dogal ko mu nekk koo xam ni ku li mu doon jëf ci alxuraan lu barkeel la yàlla sa dox na ko juróom yenti leer yoo xam ne am na fukki penc ñaar yoo xam ne ci penc mi lañu ñu bawoo ku ñuy wax Madoune Jëmb Njaay la taawloo Madoune Jëmb Njaay moo jur Bakar Jëmb ak Mor Jëmb ak makkan jëmb baakar jëmb moo jur sëñ Moustapha Kane jëmm ju baax ji nga xam xel ni ginnaaw pencum siin lay kan bi moo sañ ci Daaru Kane di maam ci mun sëñ Mountakha Kane mu tegaat ca ku ñuy wax Njagapaan Njagapaan ak Sayar Paan ñoo bokk ndey ak baay Njagapaan mooy maam mi kër euh, lay famb yi moo jur lay mi sañ ci kër lay famb yi mu tegaat ca maam Njàmme Xarjata Njàmme Xarjata moo jur Ousmane Fabinta ak ma xaali Fabinta ak lay Fabinta ak Ablaye Awa Kumba Ablaye Awa Kumba moo jur sëñ Mor Warxa Kan sëñ Mor Warxa Kan moo sañ ci Touba Kan bi mu koy sañ tuddee ko Daaru Kan Sëriñ Touba moo fi ñëw joxe ndigal ñu tuddee ko Touba Kan mu tegaat ci maam Lamine Mati siise ak maam Moutou Fa Yacine mi sañ ci kër Moutou Fa teg ca maam Paté Furi Fall teg ca maam Assane Lay Kan teg ca maam Marema Kan maam Marema Kan la ñu yóbbu ndogal mu am fa ngal gu Marema ak Mor Marema dëkk bi fukki penc yeeg ñaar penc moo fa dem taal jàngoo nga fa kon loolu bokk ci liggéeyu maam lay kan nga xam ni maam lay moomu maanaam mboolem mag ñi mu fi nekkandooloon ak mag ñi mu doon àndal nga xam xel ni ñëpp ci diine lislaam dañ ko daan jàng si fii. buur yi nga xam ne moom ñoo nekkoon fii nag ci kajoor buur bu bari na buur bu ñëw fii ñaan lu fi waaye yàlla dogal ne maam dëkk bi mu dëkkoon fii. mu sa dëkk ñoo ko biir ñoo ko buur fii ci dëkkam bi la nekkoon buur yi di ko fi fekk ku ko fi fekk itam mu ñaanal la ay buur yi jox nañu ko seeni doom mu am ci mu am ci soxna mu am ci ay doom am na ay doom yi boo ko seetee maam Paate Firi Fall maamam ci buur yi la bokk maam Mutu Fa Yaasin ci buur yi la bokk ñooñu ñëpp ay kóllëre lu mu amoon nag buur yi bañ jox ko ay soxna mu am ci ay ay ay doom la mu dun jëmm Ndiaye mi mu taawloo nag wax naa ne mu dun jëmm Ndiaye moo jur Bakar jëmm Ndiaye Bakar jëmm Ndiaye moo jur Serigne Moustapha kan ak Serigne Ibra Biige Kane Serigne Ibra Biige moom moo jur Serigne Mor Kumba Kane Serigne Moustapha kan bokku na ci nag mag ñi nga xam ne booba Serigne Touba bi mu tàmbalee di feeñ maanaam Serigne Moustapha Kane moom moo njëkk a jóge fii dem Njaareem fekk sëriñ Touba laata muy dem Njaareem di fekk Serigne Touba booba am na ay miracle yu am ndax booba Serigne Moustapha Kane def su tuddee ba guddi rek du mën a tëdd. fekk sëriñ bi moo koy woo ci baatin bi mu waree dem njaareem ba gisee sëriñ bi laata moo dugg njaareem sëriñ bi yónnee si na di laaj lu koy tudd Moustapha Kane jóge Kajoor sëriñ Malick Ndiaye mi daan yéene yéene na loolu ba mu dugg ci noppam mu ñëw ni ko maa nekk ni mu ni ko ki ma yónni yow la may seetloo ba mu eggee fekk muy sëriñ Touba. sëriñ Touba ba mu ko njëkkee gisee ba mu ko gisee la mu njëkk a wax sant yàlla ni man de sama woote bi xam naa nangu na ndax ñi sant kan balaa woote naa si ma rek sama li may woote nangu na sëriñ ko xam ko loole ci baatin ànd ak moom bi mu ñëwee fii nag bi mu ko joxee boppam ba ba dellusiwaat fii nag ci la dem ci Serigne moor Koumba Kane nga xam Serigne Ibra bii gi mi mu bokkal bàyyi ko jur Serigne Mor Koumba Kane nekk mbërum làmb mu ñëpp xam nekk nit koo xam xel ni ku amal lijaaba la mu ñëw ci moom mu ne ko sa doole ji nga am de gis naa koo xam ni ku ko liggéeyal di nga añ muy Xaadimu Rasuul ma nga njaareem fekk boobu am na feneen fu mu nekkoon waaye nag mu déggal ko xam ne bàyyi la ci moom mu ànd ak moom ñu dem njaareem ba ñu demee Njaareem fekk Serigne Touba di liggéeylu liggéey ëkk bu mu doon di ñu mu doon dindilu Serigne Mor Kumba Kan genn ëkk la fa dindi maanaam ci baatin ba fa la ko Serigne Touba defaral li mu koy defaree mu ñibbi si waat lii moo indi askanu siin wujji Serigne Touba waaye askanu siin naka jekk moom arxuraan lañ leen mas a xamee. ay nit arxuraan la ñoo xam xen ni dimas xa ba ñu jóge woon foofu ñoom ci ñi daan bind alxuraan la ñuy bokk daan ko bind ci yaxi yaxi gileem yi boobu ay kayit amagul ginnaaw bi la Seydina Ousmane euh, créé ay kayit. ñu bind ci alquran ji waaye booba moom fekk na ñi sant kan moom di bind alquran siin mii ñoo ngi ko sañ ci 1770 1770 lañ sañ ci dëkk bi waaw yéer gi foofu foofu yéer gi di taxaw nii nga gis nga xam ne maam Cheikh Rafal bi mi wër Serigne Touba ba ñëw ci dëkk bi maanaam ñetti bëccëg yi mu fi am ci yéer gi la ko am bu guddee ma ngi am ci dem ci armée yi fanaan yi ñetteel bi guddi ci la am lu ko wax ci biir armée ni ko demal suuf su Badar gi tedd bi muy dem Badar gi foofu leer gi topp ko tegtal ko ba Dakar muy dem ba daqaar ci la dajeeg maam Adama Gueye mu jóge Mbacke Kajoor sëriñ bi yónni ko ci sëriñ tay ba Dakar bi mu ko xaaree bi mu ñëwee mu yóbbu ko Mbacke Kajoor mu fekk fa sëriñ Tuubaa jébbalu ci moom fa gi gis Bamba waaw kon fii nii siin layken gi booba la bawoo woon bokk na ci nag taarixu maanaam garab googu mu doon mu doon yendu sëriñ bi bi mu ñëwee foofu moo nekkoon garabu péncam muy yéer gi at yi ñoo ngi ko commencé di ko màggal ñetti at maanaam baakar jëmu moom mor jëm mi bokol nday ak bay mo juru mudun maram seigne mudun maram kan moy bay Faal yi nek fi nek fi Cheikh ibrah fi ci daru kan dekk seigne muntaka kan boobu foofu ñooñu fofu lañ ne seigne mudun mi seen mam mam dafa and nak mam Cheikh rafal foy mam Cheikh rafal am lu mu peut être ci bir kan am lu mu fay feñal ndax non nako ben ngay am goor lay doon Mamadou lay tud ta doo ko gis bimu ko kam dem na ba am juroom ñetti fukki ko am yàlla sama borom dogalee mu war a gane jamono bis bi mu war a gane jamono daa génn dem ci àll bi bi mu daal dugg ci kër gi ngelaw solo ko mu silmax bi mu dikkee ñu ne ko soxna si yeewu ko na bi soxna si yeewu ko mu ne lu mu am ñu ni ko góor mu indaale tur di Mamadou sëriñ Modou Kane sëñ Mor Warxam mii fekk na joxoon na ko ab ab lettre wax ko ci def ko ci tur wa sëñ Modou Kane Mor Warxam mii di di di di di waajur sëñ Abdou Karim moo génne lettre ba muy Mamadou ñu tifle ko ci noppam waaw. waa dëkk yi siin lay kan meññ muy fukki pénc yeeg ñaar wax naa ne la bi ci njëkk mooy daaru kan mu dun jëmm njaay mooy taaw ba ba ca topp maanaam moo de ni maanaam mut mut njàmmi xarjata njàmmi xarjata moo meññ waa Touba kan meññ sañcub siin bi mu sañcee siin gi daa dem sañcal njàmme eh, sañcub siin bi mu sañcalee njàmme sañcub siin boole ko muttu fa yaasin muttu fa yaasin ànd ak moom sañcub siin bi yàgg muttu fa dem sañc kër muttu fa njaga pan sayar pan mi bokol nday ak baye domam and nak ñom ndax sayar bokku na ci ñi ñëk wacc mi ngi ci armée yi nga xamni ne Cheikh Rafal fi la doon seeta Serigne Touba ah, doomam lëy Fambay mo tan ci kër lay kër lëy Fambay njaga pan genn wàll ci mirina kër Ousmane wa kër njaga pan lañu ak sàmbaax ndax domam Ahmadou Njaga mo sañ ci sàmbaax ah ci dëkk yi la mam Ousmane Fat binte doom la ci maam Jamme Xarjata mu dem sanc kër Ousmane bokk ak xaali Fab Binta ndey ak baay Maxaali Fab Binta dem sanc kër Maxaali bokk na ci sanc ah, ab laay Awa Kumba dem sanc mi ab laay Ablaye Ablaye Awa Kumba moomu nag doomam moo war xam moo njëkk a sanc ci si njàmm yi pencum boppam muy Touba tuddee ko Daaru kan Serigne tuubaa ñëw fi tuddee dëkk ba Touba moo indi turu Touba waaye bi mu koy sanc Daaru kan la ko sanc woon waaw mu teg sa maam ma Lamine Mati Cissé maam ma Lamine Mati Cissé mooy maam yi tey jii Serigne Dame Kane mi nga xam ne mooy borom dëkku Siin bii ndax ki nga xam ne moo fi nekkal siin di di kilifa gi nga xam ne moo mag ci kan Serigne daam la doyloo jox ko dëkk bi te mooy borom juróom-ñeenti dëkk yoo xam ne kenn ko ci bi nga moom dëkk bi Serigne Dame nga jox dëkk bi man Lamine Mati Cissé moomee nag maanaam mbëllëxe mbëllëxe la këram ne ndax Moussa Daaro doomam Moussa Daaro moo sañ ci waaw mbalaxe la la la la këram nekk waaw mbalaxe go boo ko seetee ma ma makkan euh, makkan jëmb mi bokk ak euh, makkan jëmb mi nga xam ni mook baakar jëmb ak moo jëmb ñoo bokkoon ndey ak baay moom kër makkan la nekkoon foofu la dal hmm. waaw jàmbaari ka gépp benn bopp lañu damay dellu si war rek ci diggante Serigne Touba ak Sine ndax ah, Ahmadou Farimata ak Thierno Farimata moom dama lay wax ni Siin mooy Sénégal ndax dama la wax njëkk ne la ñi xam ñooy Sénégal di maam Serigne Touba ak maam allah ñi ma lu jiitu Siin di am lu jiitu ñooñ am Siin am na moom. ma nga soosoo foofee ca maam Maharam mi nga xam xel ni moom meññ ndax maam Maharam bi ñu ko joxee ah, soxna Farimata Seck da ca am Ahmadou Farimata ak Thierno Farimata Thierno Farimata moo jur maam Mati si Mbàkke ak maam Xëri Mbàkke maam Mati Joosi moo jur maam Ousmane mu jur maam El Hadj kon bu ñu wëlbatikoo euh, maam Ahmadou Soxna Bousso jur maam Ahmadou Soxna Bousso jur maam Asta Waalo maam Asta Waalo jur Soxna Jaara soxna jaara ñu jox ko maam Mor Anta Sëri te maam Mor Anta Sëri maam Balle mi ko jur soxna Astakan mbokkum waa dëkk mii jur ko wa juma yi njaareem jooju loolu mo waraloon sëñ touba bi mi rëdd jumaa yi njaareem mu ndox ndax ku dekk sin lay kan amna fi fekk boobu ci sa dit barab bi di jëm ci kanam muy barabu mam dam ngone ciun mi malay wax ni mam dam mam njàmme xarjata ko jur dom ji ñi wax yibra mati kan fekk bobu mo nekk ndiarem nekk ak serigne Aliou Touré mu ne ko amna ndongolu dekk sin lay kan ñu ñew ci mom wax ko waxtu ge lañ ko wax mu joge ndiarem ge fajar mu ñew sin tibb ci suuf delu wat ge jox ko ci musuwaar jox ko euh, jox ko sëñ Aliou Touré mu jox ko sëñ Touba 1916 sëñ Touba def ko fi mu def ju fi ñu def jumaay njaareem tey waaw mu fekk ni Siin moom mooy ñaareelu jumaa ci Sénégal waxan naa la ko ci biir tàmbali bi ndax nee naa la pire njëkk Siin lay kat ne ci topp ba ko di mbiri na asta waaye Siin daa bokk ci dëkk yi nga xam xel ni dëkk cosaan yi la nga xam ne ci ñi njëkk am jumaa la bokk dëkk yi wër Siin yëpp di tundi yi fii lañu daan jullee si maanaam itam ku mas a am ku wàññi fii ci armée yi nga koy rob si waaw ñi de tafsir Mor Fati Diané mo fi ñëk tafsir alquran kon lima ci doli bala ma jox Serigne sid mi bay dam mi borom borom dekk bi euh, cant goo rek ñong koy tàmbalee ci yeen ñi nga xam yeen fi ñew ak télé bi équipe bi nga andal Modou Ablaye mbaw équipe bi nga andal ñong leen di sant bu baaxa baax ndax euh, yeen ji ngeen am ci dekk bi ak yaakar ji ngeen am ci dekk bi ba tax ngeen ñew ci dekk bi bi ngeen ñew ci bi gis dekk bi xamne dekk bi dekk jambar la te ngay liggéeyal jambaari kadior nga proposé mako yalla sa borom dogal serigne Muntaxa Kan mi nga xankal ni jambar la ci jambar yi nga xamni li lepp lépp moo ndax lu mel ni metina féré yiñ ci fere ngeen dog fee ñew lepp ci mom la bima ko waxé bat ak tontu la ndax lu lepp bëgg dëkk bi la yow bo démé ci barbu serigne Moustapha gis nga ni mu ko def lu jitu barbu serigne Moustapha Kan bo démé dëkk bi serigne Moustapha Kan ci mu Daaru Kan gis nga juma ju rëy ji mu fa def gis nga naal yam fa def ba ko défé ak légui ndar fee nek ak légui sancé dëkkul sànc bu jeex mu tàmbaliwaat benen ngir loolu lepp bëgg dëkkam ak bëgg tundam bëgg réewam sin lay kan gi juma jaa ni lal na ci ay tappi karo nako def na lepp te lepp lo xamni sin bëgg nako suba ba ci ngon ma nga ci bu ko déggé rek bu ne tok ci noppam bu dé suba Bala jant bee so dina ko def bu dee ngoon na balaa set dina ko def kon muntaka dekk bi amel nako ko tundu tund amel nako na ko gogo nak manam suma ko waxe melni wa dekk bepp ndax liko wa dekk bi ne dekk bi lepp lo xamni ñong koy wax di sant ni man ci sama kaddu lañ koy tek kon ginnaaw sama kaddu lañ koy tek kaddu munta nek ñaar dekk bepp ko sant nak nekul ni man rek mako sant cant gi ma sant dama ko jël ci dekk bi baye dam mi nga xamni mom la fi yalla tek muy borom dekk bi jox nako kilifteef gu mat sëkk fu ci teg rek tek nako lu baye dam bëgg loolu la bëgg lu bàyyi daam bañ loolu la bañ ndax moom kilifteef rek la xam ndax waajuram bu baax wa bi muy jóge fii ndigal la ko fi jëlee mu dem bi mu demee ci kër Serigne Bassirou Mbacké ba mu tuddee ki mu tuddee Serigne Bassirou tey jii mooy xalifa ci kër Serigne Moustapha Kane waaw. sëñ Mountakha moom ñu tuddee ko sëñ Mountakha Mbacké mu bëgg ko lool nag maanaam bañ na ko bu ma ko dugalee daara lu néew da koo jël rek dugal ko école français. tey jii defe naa France ba mu ko dugal taxaw ko jàppale ko moo soxna moom mi euh, moom soxna moom mi matu Mbacke euh, soxnaam su baax sii nga xam xel ni mooy doomi sëñ Cheikh bu Mbacke ñu bëgg sëñ Mountakha Kane lool bëgg siin saa bu Mountakha xewlee ñoom ñëppay ànd ñëw fii ngir ngir liggéey sëñ Mountakha kon mun sëñ Mountakha ñoo ngi koy ñaanal jàmm yal na yàlla dolli ko jàmm yal na ko yàlla dolli taxaw li mu soññ ci émission bi ba émission bi am gis nañ ko yëg nañ ko sëñ siin a ngi nag mi ngi koy ñaan ci barke maama barke dëkk na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla sàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ siin ak turu waa dëkk bépp di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla may nu jàmm àddina ak jàmm àllaaxira bu loolu yàllee siin gi maam la imi ko sanc jàng ak ak jàngale rek moo ko fi indoon ndax da doon jàngandoog um, sëñ ma kumba lay mii ak uh, ki sañceen kawoon bi mu ko defee bi ñu jógee ci daara ji moom mu nekk ci kantaati gee fi ginnaaw ngaay léegi-léegi mu ñëw fi di leen siyaare ñu woo ñu ñu ne ko nag diggante bi dox bi métti na dama bëgg nga jige sinu mu dem ci dameel wax ko ko munu ko léegi li dale ci tu euh, sumpi sumpi mbakol ba ci téeri euh, ba ci téeri mbooro ba ci téeri mbooro fu la ci neex dëkkal mm-hmm. bi ndax booba kenn mënut a dëkk te te dameel yi ñu bi mu ko defee bi mu bi mu fi nekkee am bis dammel woo leen bi bi mu sañcee ba noppi am bis dammel woo leen woo Cheikh Serigne si ne ci tund yëpp ni leen damaa ba ngeen bindal ma galaaj ba ñu ko ba ñu leen bi bindalee galaaj maam lay bindal fàtte jox ko xam nga cedde yi booba lu loo doon doon sëñ gëm gëm moom gawuñu koo def mm-hmm. ñuy jàng mu jàngulu téere yi di jàngulu ba gis téere maam lay maam lay def ci Fatiha mun ko baax léegi lu tax nga lu tax nga may di la bindoo gàll ak ngeen di def Fatiha Fatiha nga xay jigéen tax mën na ko. maam lay ni ko sëriñ sëpp kenn ku ne na dagg ci kaalaam takk ci takk ko téereem ñu taalub taal def ko ci. ba mu ko defee kenn ku ne dagg morto ci sa kaala takk ci sa téere bi ñu dugalee téere yi ci taal bi. téere yëpp jàpp mu des bu maam lii bi mu ko defee noonu bi mu ko jëlee da mel ni ko da nga ma ko jox mën ko du ma la ko jox bi mu ko koy joxee lu leen lu leen jox na ko ci fukk doomam yi mu yi mu am yëpp it ñu ngi fii ci barab bii maama Lamine li ko ma nga ci sëgg kër ma kale la ko fa def da doon jàng ci góor gi mu sa daara jaxate bàyyi xaalima jaxate bi mu fa jàngee ba ñëw fii ba ñëw sanc mbalaxe donge yi mu yoroon mun leen léegi mag laa dem leen ci ma xaali mu mottali leen seen àllu bay ñëwee ci moom di jàngale yàlla def këram lakk mu woo maam maam xale ni ko léegi ñëwal ak dong yi ngeen defaral ma kër gi bi ñëwee di ko defaral kër gi ñu defar kër gi ba mu yàlla def tawat daaneel ko fa mu daal wàccub liggéey bi mu wàcceeb liggéey mu xam ne su ne waa Chine ma ma la wàcc na liggéey ñu jël si ko mu denc ko ba am ñetti fan soo ko ñu wax leen ko ndax xamul ñun ñoom mag ñu baax ñooñu ku ñu gis nga baax rek bëgguñu nga sori leen wasalaamaaleykum wa jërëjëf mbokk yi seetaan seen émission jàmbaari kajoor loolu la leen jëlee woon fii ci Sine Leye kon dañuy ànd ak équipe bu jàmbaari kajoor dem ba dëkk bi ñuy wax Daaru kan di dëkku sëriñ Moustapha Kane waaye di dëkku jàmbaar ji Serigne Mountakha kan mi déplacé équipe bu la woon jàmbaari kajoor ngir indi leen fii ci Sine Leye ak Daaru Kane. dara maanaram loo ku ma jaame mañ benda baate benda bëgguma benda makabu malik jërëjëf mbokk yi ni seetaan ci seen site Kadior Entertainment ñu nekkoon ci seen émission jàmbaari kajoor xam ngeen ni ñu ngi bàyyikoo siin Lay kan di dëkkub Maam Lay kan di jàmbaar ci kajoor ñëw nag ci beneenub dëkk muy Daaru kan di dëkkub Serigne Moustapha Kane di maam ci Serigne Mountakha Kane kon mbokk yi dañu leen di xamleel ak dëkk bii di Daaru kan ci seen émission jàmbaari kajoor ginnaaw si ñu dalal ci suñu xarit Serigne Mor Talla Kane ginnaaw bu nu ñëwee ci baneenub dëkk ak jeneen jàmbaar di Daaru Kane a wane taarixu daarukan ak sëriñ Moustapha Kane mi sanc dëkk bii di daarukan nekk ci Kajoor di benn dëkk ci jàmbaari Kajoor yi sanc di Serigne Moustapha ñu bàyyi leen ak Serigne Mor taalakan mu xamale leen ak Serigne Moustapha Kane mi sanc dëkk bii di Daaru asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu sëñ Moulay bu baax sëñ Modou Ablaye ñoo ngi lay nuyu bu baax ak di la sant di la gërëm di di leen xamal ni Cheikh Moustapha Kane moo wen jàmbaar ji xaani moo fekke woon Serigne Touba bi mu nekkee si laykan di jàngale alxuraan yor ay dong ak i daara di jàngale xam-xam di tërbiyee ay taalibe ban mokkat alxuraan def si ñoom xam-xam. def si ñoom xam-xamu diine bi yàlla dogalee ku te ku baax ki feeñ mu tëdd ba guddi toujours saa bu tëddee rek du mën a nelaw muy jéenal ku tedd ki muy di muy jéenal ku tedd ki naa ko Cheikh Moustapha Kane ñëwal Cheikh Moustapha Kane ñëwal ba mu ko yàggee dégg ba dégg ko ba mënatu ko muñ ba mënatu ko muñ ci la daal di jóg fab téere yi muy doon jàngale kaamil ya ak ak téere xam-xam yëpp dem ba xumaag fekk Serigne Touba jébbalu eh, njaareem fekk Serigne Touba jébbalu sa moom ba mu demee dafa nuyoo ah, laata muy si sax sëñ Touba dafa yabal ku ni wax sëñ Malick Lo ni ko boo demee nanga dem ba sa marsa ba di laajte ana ana Cheikh Moustapha Kane ana ndawul li jóge si nekkan seex mu Kane ca boobu Cheikh Moustapha Kane eggul ko si ku tedd ki moom ko déggee muy dégg mu koy laajte. mu laa ni maa ngi nii mu ne ko dan maa yondi si ni ma am na gan su ku baax ki moo ma ne am na gan gi jëm si si ñëw bee mu ñëwee Serigne Touba dafa daal di jóg jublu penku julli ñaari rakka yi gudd lool yàgg lool bi mu mu sëlmalee mu ni Cheikh Moustapha Kane xam nga sama julli ñaari rakk yi li ko waral la mu ne ko dama ko doon sant suñu borom subhanahu wa taala ndax dama woote ahlu kan ñëw yow seex mu sawakan bi nga ñëwee rek laa xam ne li ma doon woote lépp suñu borom nangu ak yonante bi moo tax si lool loolu moo boobu ma ànd nag moo tax ma julli ñaar rakka di sant di di di ko sant yàlla ni di la xamal ne bi nga ñëwee lépp baax na ndax ku sant kan soo wootee rek ku sant kan ñëw rek lépp day daal di nangu si la ko téye téye ko diir ba mu koy téye wax ko daal di ko woon ñëw ni ko ñool ma ñaanal la Cheikh Moustapha Kane laata muy dem dafa ni ko jébbal naa la saa bopp àddina ak àlaaxira ak mbooleem ko askan wi ma bokk ko sant kan ñëpp jëbalewaal na la moo tax mbooleem ko sant kan ci askano si maam lay ñëpp génn nu sëñ Tuubaa si loolu Seex Mustafaa Kan sëñ Tuubaa daal koy ñaanal mu ni ko boo doxal maa ngi doxal loola loola dab si yoon naa xam ni man mii loolu la fekk foofa nanga xam ne man mii waaye waaye boo demee nanga nga sanc dëkk boo xam ne na nga ko tudde Daaru Kan muy nga nga dox tuuti lu toll ak toolu ngonal di fa gis ñaari garab yu loola garab yi loola yooyee benn ba caxat ma da sa sax sax sa taato law ba sa kaw caxat googee bokk na sa caxate àjjana yi ba fi mu ne caxat yi boo da nga jikk ba gis ko si béréb caxat googee mooy fii ni fii Baye Mountakha def jumaa ji fi imam bi taxaw foofu la loola gi nekkal mu ni ko dëkkal foofe ne boo demee nga def ko kërug liggéey joxe daru kan foofu lu la fa fekk na xam ni man mieux kun fa solit na xam ni sunu borom eh, sawe na ko ca sab liggéey di xam ni sunu borom nangu na ko ba tey gis nga ni dëkk bi mel. Cheikh Moustapha kan jàmbaar la woon ku dëgg woon ku amoon xam-xam la woon ku am ijaaba la ku ragal yàlla ku fees dell ak xam-xam. alxuraan sax bañ nañ ko ban ko daan dàkkanteel xaafisul alxuraan dafa mokkal alxuraan ba yéemu si yéemu si askan wi mbokkoon ñëpp yéem ko si mokkal gi mokkal moo tax bi mu demee si sëñ Tuubaa di jébul sax jaaxalan na jaaxalan na ñeeni bokkam yi ba am ñu boy si bokkam yi ñu ah Moustapha Kande nii mu mel ak li ko yàlla defal muy dem di seeti moroom doomi soxnaam waaye booboo yëgu ne li seex mu Kane di yëg sëñ Touba yëg li seex mu Moustapha Kane mel mu boole ñaari jàmbar yooyu moo tax Cheikh Moustapha Kane ñëw sanc fii si dëkk bi Darou Kane nekk na fi lu mat fu euh, lu yàgg ab diir bu yàgg ba ba ba dem doon sanc beneen dëkk bu ñuy wax mbalaxikan gi fi fii si penk bi foofu la ko fe eh, tawati dabe ndax booba mag la wan mu war aw fas fas yu jëpp cëppi moo ko tooyal ba mu dellusiwaat fii si dëkk bi ba quinze si la làqu moom seex mu Moussa Kane si ñaar fukki fan ñaar fukki fan si la kàtti gàmm yi nu ne si ñaar fukk fan yi si bisub si yor-yor bi lañ ko denc fe ngeen dem muy barab ba ngeen demoon Bisu bay bàyyi ko liggey bisub altiné la won kera fofu amna ci kangam yu nekk ci bir bi ni denc Cheikh Moustapha kan ñaari balami demi la sampan di doxé bi nu ko ba nopi si yor-yor bi ñu ne ko waw diw ni nga don def sa tanki eh, sa ñaar tanki lo ci jublo ni ku difon ni ma don def. lu mbooloo mi bari bari bari malaaka yi nekk ci biir rob bi di gunge Cheikh Moustapha Kane yaa ngi leen di joggi jàmbaar jooju nekk na fi yar yar dongam donga yi tërbiyee leen jàngal leen xam-xam ay doomam ki si jiitu di sëñ man fàngam sëñ sëñ Moussa Ka na ko tërbiya jàngal ko alxuraan def si moom lim si def lépp ba mu pare mu def foofu doom ji di waxaat sëñ lay mi xam moom mooy mooy waajuru Baay Muntaxa ak sëñ Basiru Kan moo daal di koy def lim ko def ba ñoom ñëpp nu fees del di di di di dimbalee di defare comme ni ko seen baay doon defee. loolu mooy jàmb lenn si li ma tënk si Cheikh mu Kane comme temps bi daa gàtt li ma tënk si Cheikh mu Kane da bari na. lu ma war a wax lépp waaye comme ay ay ay la ca da ngeen war a am fu ngeen di dem ma ma leeral loolu rek dëkk bii nag di Darou Kane moo ko sanc 1904 Darou Kane gii 1904 la ko sancan ñu det si na si jàmbaar yi ja am ji di sëtam di gaynde xare muy sëñ Mountakha Kane yàlla ko fi yàlla yàggal ndax sëñ taka loo ku dëkk si dëkk bi rek di nga amaat geneen xar kanam goo gis dëkk bi boo xam amul woon ndax am na fi ñu doon wax naa ay jamono fii dan am na ñu daa ñëw naa tee ngeen a ñëw rondu si si dëkk bu mag bi muy Sine Leye Kane ndax booba dëkk bi mel na ne lu lu lu lu kii waaye boobu daa gëmman rek booba jàmbaar ji ko war a dekkil ak ceegul muy euh, sëñ Mountakha Kane bi sëñ Mountakha Kane dikkee daal di daal di defar lim njëkk a song mooy dafa daal di ubbi jumaa ji néegu yàlla bi ndax boo defee rek li jëm si yàlla mu jaamu yàlla bi xam ne moom lañ fondation woon dëkk bi mu daal di attaqué kër jumaa ji ngeen gis léegi tabax ko ba mu ko tabaxee ba pare mu daal di lu si dëkk bi lu si waat dëkk bi defaraat ko ba ba mingoog jamono daal di fay bënn ak forage fii moom la ni naane moo bënn forage bi forage bi sax war ngeen dem jëli ko moo ko moo ko bënn def fa ab projet boobu moo ko liggéey ci aw ñaqam joge fa daldi di defar bala bu bayam bu di taw seigne mustapha kan muy seigne Mor Fangam bi fi joge mu tabax keur bayam maamu gi di keur seigne mustapha kan bim fi joge mu mu daal di eh, tabax këru boppam fi joge nak ci la comme aw nit nekh li sax yittewu ko waaye boo gisee mu tax ngir nit ñi ñew si mom mu am fum leen dugal moo mu def li waye li ki gëna yitel gën ko ñor moy dundal dekk bi eh, toppatoo dekk bi dundal wa dekk bi jàppale leen ci sayr ak ci batim lepp lu am mu Moustapha kan rek la ko jëmee ci dëkk bi waaw ah, kon waaw kon ñoo ngi sant bu baax ah, di gërëm di gërëm sunu mag ye sëriñ Cheikh kan ak sëriñ Modou ak euh, sëñ Mountakha Diouf mi xam moo fi nekkal mun Mountakha nekk ko si kër gi si jàppale ko ci liggéey bi moo ñu ñu di ay jàmbaar yoo xam ne Baye Mountakha moo leen taamu ba indileen fi ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di nuyu ak mboolem ñu fi nekk ñëpp ak waa dëkk bi yëpp si turu nag sëñ Bassirou Kane mi xam moy mai eh, magi baay basi eh, mai magi baay Muntaxa Kan muy sëñ Basiru Kan bëkk dem rek la fi jóge ngir nu waajal bis cheikh Musaa Kan bi bi ni waxaa ne ko wara amal eh, la 30 janvier incha allah yal na si yàlla ak jàmm. jërëjëf mbokk yi ni seetaan ci seen émission jàmbaari kadior tay ñu ñëwaloon leen ci dëkk bi di sin Lay Kan sañ ci di jambar ju mak di mam Lay kan. waaye te ñu agsi leen ci dëkk bii di Daaru Kan ki ko sanc di jàmbaar ju mag di Serigne Moustapha Kane sancoon ko ci atum 1904 dëkk bi nag bu nu fi ñëwee ñu gërëm bu baax waa dëkk bi di ko tàmbalee ci maam Dame Kane mi chef de village bu Siin Lay Kane waaye ñu sant bu baax Serigne Sam Diouf gis ngeen ñu àndoon waxtaan wi yëpp àndoon ak moom émission bi yëpp àndoon ak moom jàmbaari kajoor yëpp waaye te ñu sant ku bëgg dëkkam bëgg cosaanam fonkit lool cosaanam muy mun Muntaxa Kan ku ñëw daaru kan xam ni ku bëgg dëkkam la muy daaru kan gis ngeen li mu fi def ci ay réalisation yëpp ngir fonk gu fonk cosaan fonk gu mu fonk dëkkam fonkit gu mu fonk tundu kajoor fonkit gu fonk maamam yu baax yi tëdd ci dëkk bi di daaru kan kon Serigne Mountakha kan ñu ngi koy sant di ko gërëm jàpp na ci émission bi ba mu mën a am ni nu ko bëggee waaye bi nu ñëwee daaru kan ñu sant bu baax sëriñ Dame kan moom itam Serigne moor taala kan jël nuyoo dëkk bi yëpp teg ko ci loxoom mu tasaareel nu ko ci dëkk bi kon mbokk yi mu doonoon seen émission jàmbaari kajoor dañ leen di jox dig daje teg foofu seen baaraam. ba ci baneenu numéro ak ci jeneen jàmbaar ci Kajoor